koy fay lañ koy wax directeur général bu direct news mais di doomu Ngekoox donc doomu Ngekoox bi moy li ci ëpp solo parce que lolu mo ñu indi tay euh di jàppale euh, honorable député maire euh, Pape Songo Diouf ci combat bi nga xamné bi mu ngi koy mëne nek na it mom ko xamné euh, xaru ci kenn bi président de la république joxé ndigal la gis né mom moo ci bu baax a baax ba tey ji it ci lañ ko ci fekk donc euh, ñun suñu wareef mooy accompagner ñi nga xam ne yi ñoo yor collectivité locale yi jiite lépp bañ leen a seetaan ak combat bi parce que tey jii mooy li ma doon wax démb ci benn interview di woo opposition bi pour ñu jàppale le président de la république parce que tey jii buñ ci échoué c'est pas le président de la république c'est le peuple sénégalais qui a échoué parce que l'ou daan Amérique en France est au Sénégal kenn ne de donc pour nous, bañ nous ñëpp dañ ci pour que victoire bi victoire du peuple sénégalais la victoire du Sénégal donc à cette échelle nous sommes ñu au niveau de la commune avons appelé Michel le maire ci 5000 masques dina ko jox population yi avant ñuy ñëw it gis naa ne joxe na des milliers de masques ici donc di woo aussi doomu wax yëpp ku ci ne li nga man ñii ci wàllu matériel ñii ci wàllu xaalis ñii ci wàllu xelaat bu rafet parce que loolu moo yor réew loolu moo yor dëkk donc maa ngi leen di woo solennellement pour ñu ñëw accompagner ko pour que véritablement euh, le virus soit battu gagné euh, au niveau de Ngekoox fexe ba sax bu mu effectivement d'ailleurs carburant yi sax indi nañ ko nii euh, woo na Arona bi nga xam ne euh, poste de santé 2 pour mu ñëw jël carburant bi nga xam ne bii digoon nañ leen ko ci bon lolo aussi doudara dara j'appelle euh, jàppale dëkk bi parce que Michel le maire mënul lépp ndem président de la république moo mënul lépp waxuma un maire te maire xam nañ ni ñu limité woo ci euh, euh, gestion bi ak yu mel noonu ba pare eh, ñuy doomu Ngeko donc poste de santé yi moo war a jiitu fexe ba aar ñi nga xam ne yi ñoom ñooy faj doomu aadama yi ak di leen aar moo taxoon ñu indi woon fi gel indi woon fi ay masque te loolu aussi dana ñëwaat parce que yow lu ñuy utiliser la day jeex donc day ñëwaat euh, pour appuyer waat leen carburant aussi bi nga xam ne bii digoon nañ leen ko indil nañ leen ko donc mooy loo xam ne lii daal moom la ñu indi woon tey di gërëm monsieur le maire parce que nag euh, xaar bi yàgg na euh, di ko sant di ko ñaanal yàlla sunu borom euh, mu may ko wér may ko xéewal jàppale ko ci liggéey bu rafet bi nga xam ne bii mu ngi koy def fii ci campement Ngeko di remercier nag l' ensemble du conseil municipal di remercier ñi nga xam ne ñi ñu ngi koy accompagner nekk fi di ko jàppale di remercier aussi les populations de Ngeko donc di remercier ñep di sante bu baaxa baax la presse euh, bi nga xamné ne yeen yéen kenn jiituwu leen ci liguey bi liguey bi euh, su demee ba yegg fi sensibilisation avec information bi di daw di dugg ci biir euh, nit ñi di dugg ci biir réseaux sociaux yi di dugg partout à travers le monde c'est parce que yeen a def liguey bu mucc ayib donc yeen aussi ñu ngi leen di beral ngeureum ak cyant bu baaxa baax mais ba mu tuddé aide rek. ba mu ed la wax ji jeex nit bu lay dimbali do ko ne ni nga may dimbalé wala li nga may dimbalé nañu fexé ba bu mu ti ed c'est le grand combat qu'il faut mener waaw xam ndax dégg nga ma ou pas mais bu xesee ba tudd ed rek jeex na waaw voilà mu nekk ti ed à la presse am na neneen nu mu tudd ci yenen réew du doxé ni bu ñu fexee ba mu tudd neneen rek alors bu nak euh ñepp acteurs de presse les patrons de presse les journalistes seront représentés et que la répartition serait ni ñu ko bëggé mais tant que mu ngi tudd aide nak aide lay mëna doon donc ce débat là pour man ci tur la parce que si on ne ba tuddé ko noonu rek c'est fini sarax sarax la euh, bon man euh, ci sama gis-gis man naa jàpp ne yéex na man naa jàpp ne yéex na mais gaaw na aussi gaaw na mooy on a pris vite les décisions président de la république daal di jël matuwaayam ni mu gën a gaawee mais nag ci mise en œuvre yi dafay am effectivement des procédures administratives yoo xam ne day tardeel liggéey bi yooyu boo xoolee président mu ngi wax de il faut que ñu alléger les procédures d' attribution de marché même yi bii nii sax am na lu ci xaw a euh, wàññi tuuti. mais n'empêche procédure yooyu bokk na ci li ko tardeel mais aussi wax ji xuloo bi ŋaayoo bi il faut ñu teg ko ci suuf ànd jàppale ñi nga xam ne ñi am na nañu yéene pour que ndimbal bi yegg ci biir askan bi ñi nga xam ne aussi jox nañu leen marché bi bokk na ci ñi tardeel affaire bi parce que jox nañ leen ko te amuñu ko wala mënuñu ko nous nous le sucre qui nous donne jox euh, huile bi ak yu mel euh, euh, aussi le na ci loo xam ne semaine passée nous avons relancé pour que ce soit a ñu jox ko ainsi de donc il y a eu li nga a effectivement jeexal na aussi la disponibilité du riz aujourd'hui on a parlé de 144 000 tonnes on est à 8 000 xam nga ne kon li des bari donc il faut qu'on accélère et qu'à la limite si on ba mu nar a tardé nañ ah di wax ne ñi nga xamne ne am nañ lu disponible hmm. wo nañ leen na ñew soumission ak jox ñi ñu gaaw joxe affaire bi parce que nawet baangi ñew amna am na dëkk yoo xam ne oto fa mën dugg il faut que aussi ñu jàppale le monde rural bu baaxa baax te buñ leen di dimbali aussi na nek ndimbal bu am solo manam en quantité manam ñu jox leen lu lu am solo ndax xam nga euh, fi mu toll ni suñu mbokk yi nga xamne ñu ngi won bitim rew tay ji ñoo yónnee dara mm-hmm. ñoo yone te fi mu toll ni ku nek yaa koy sentir da nga koy sentir soit directement soit indirectement ñi la daawul laaj sax dañ lay laaj am na ñoo xam ne duñ mosuñoo laaj bu ñu demee ba laaj laajte parce que am na fu dëkk bi toll. donc ci jafe-jafe te te te bu ñu deful ndànk aussi ci jafe-jafe la ñu jëm. parce que nawet bi la ñuy dem nii nawet képp da ngay xam ne sàq yi day gaaw jeex ah moment boobu day nekk moment bu xaw a bu xaw a doy waar ba tax na sax boo xoolee à l'époque ci lañ daan indi li ñuy wax ristourne yi. Mm-hmm. waaw ristourne yi jamono yooyu lañ koy indi mois d'août. waaw fekk sàq mi jeex euh, dara ñoragul euh, donc moment boobu lañ koy donc moment boobu na fekk ñu yónnee nag lu am solo lu am solo donc ñu ngi interpeller bu baax a baax le ministre Mansour Faye pour que ñu ñu ñu fexe ba cent quarante mille tonnes cent quarante quatre mille tonnes ceeb bi ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ci biir ñu fexe ba yooyu gaaw yëgsi parce que sinon rek nawet bi Eh, su xasse ba ñew rek euh amna dëkk yo xamne pour nga yobbu fa camion day dal di jafe mom bu ne bëgg na ngexoot ñun dañ koy gëm bu ne fonk na ngexoot ñun dañ koy gëm bu ne xoolam ngexoo nga ci dañ ko gëm ndax tay dafa ñew andi ndimbal dafa ñew pour jappal askan wi mu jaarale ko ci buntu ba buntu askan bi moy fan maire bi kon bu li ñun duñ def lu dul rafetlu ko tey kat ñu ngi seedal waa Ngexoo ne Pape Dioguye mi ko bëgg Ngexoo la bëgg Ngexoo mooy lan mooy lu Ngexoo tegoo tegoo ci yokkute nga bokk nga ànd ci ak moom su Ngexoo nekkee ci wàllu tolof tolof nga gunge ko su Ngexoo nekkee ci wàllu soxla ndimbal ñu gis la wax ko nag képp kuy imam ratib wax ko képp kuy góor. wax ko ku kii kilifa ci dëkk bi ne ndimbal ni mu Pape Diagne def fi ci dëkk bi ndimbal la moo xam ne ñëw na ci waxtu au moment où ñu ngi naan léegi képp na ñëpp nañu sol masque dëkk bi manqué masque ñu def ay masque doyul mu indi si junni juróomi junni masque loolu kat dama yaakaar ne ku ko ku santul nit doo sant yàlla kon pap Diagne dana ko sant ci loolu lii mu def nag war na euh, exemple képp kuy politique ci Sénégal la xuma nag nga ko képp ku bëgg dara bëgg dara ci dëkk bëgg dara ci réew bëgg sa waa dëkk xam la bëgg sa dëkk naw la lii Pape Diogay def royukaay la kon roy leen ci lii ngeen jaarale ko suñ ko war a jaarale ñu dimbale dëkk bi Pape Diogay ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi rafetlu lii nga xamante ne def nga ko te da du ne gulet